Oh, Muhammad. الذي لا اله الا الله اللهم صل كلمات لا God. doon ak si jëmm am xibaar ak jëmmi imaam yi fi ne ak njaboot bi nga xamante ni ñoo ko fi jëmmal Serigne moo la ngi nii day defaat na Serigne Cheikh a ngi nii ñu barkeel ci ñoom gannaaw bu ñu jógee ci alxuraan yi nga xam ni jàng nañ ko fi ñu ñaanal Baye Abdoulaye diario beroko diario tafilol এখানে তিনি মজো সেঞ্চুরি থ্রি সেটি মানলে বাস্তব কমিটি কি তার সমিতি কাকু মঞ্চে খেলতে লমুদন চৈতু মনি يلا مدرجة لتتم مشيتي يا حياتي أمرتك ndax nee na daanaka mu fekk Ibrahima ne imaam yi ak muqaddam yi fi ma xam naa ni sama jëmm daan na sawar lool ñu bëri te ñu xale ñu bëri daan ñu bëgg dañu faat moom gis ko mu gis leen ñu nuyu ko mu nuyu leen mu saabanteeg ñoom waaye nee leen bàyyi laay ma nga fa seen ay tam mu ci biir ba seen am doom mu ca palaas ba seen Babacar mu ca palaas ba te ñoom ñëpp ñoo ko gën a xool ñooy bàyyam kon nag mu tey sëriñ nee nañu leen di masawu bàyyi di baas jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la ndax taalibe yi fu daje lu daje ma neex neex bu gisoon kenn ko bokk ci ahlu bayti su tooxee dina leen metti kon nag ñu mel ni yow yàlla leen yàlla doon ñu wér defal may la jot koo fa àggee ca fale fa may la tànk yoo fa demee Serigne daal defe naa lii nu waxoon su nu ñëwee ñu wax ko sëñ bi ci kanamam ñëpp dégg ko xam ne moom ci boppam moom sëriñ moom mu yor yëfi xalifa bi nee na xew wii lu mu ci yokkul moom du ko ci wàññi ndax moomu ko diine ji moom moom lii ak muxaddam yi ak njaboot gi ak taalibe yi ñàkk mën a ñëw toog du tax mu ñëw wàññi ci dara nee lam ci daan def lépp tey la gën a pare pour def ko ci waaye lépp nag yàlla na doon sunu muur mu teg ci sànq ni ko baas bi dey ñi ko doon baas sonn nanu gas nañ ba sonn ñi doon andi ay chaise andi nañuy chaise waa loolu lépp lu ko waral jikkoy rafet rek nee na sunu sañoon tànk bi balaa tas ko amoon jikko joo xam ne dafa dafa noona yàlla soppi ko nga ndaje mi daal jikko ju rafet rek moo tax jikko ju rafet rek moo tax ñu woote ko kon ñu ñi nga xam ne ñoo ko seq comme tàmbale nañ ko alxuraan rikkawaay comme alxuraan lan ko ubbee ñun ñëpp nanu am ngoru tënku si alxuraan ji rek buñ gisee sëriñ beeg buñ ko gisul nan ko ànd ak yar ak teggin ak jaamu yàlla def ko fa jóg aajo bañ ko bañ sorko sorko sëriñ bi nee na bu ko déggee du ko neex na mel ne mi ngi fi nan ànd ak yar teggin yan ko yan ko daan jox ak teggin alxuraan ak adabi alxuraan ñu def cant gi ba ngoon ñu ñaan sëriñ bi ñëw ñaanal nu ku nekk yàlla fa caajo yàlla na ko def kon sëriñ maam libaas loolu lan jële woon ci shérif samak boole nan lépp nag daal la kay delloo sang bi nga waxtaan ak mbooloo mi defal nu nag nu daan defale waar nu nag nu daan waare gindi nu nag nu daan gindee ñaanal nu ñu dellu sa kër ya ba ngoon ñu àndaat ñu ñëpp ñëw ci place bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim سيدي إمام لباس ابن سيدي أبا بكر ابن الإمام الله إمام كل إمام إمام الحرمين موي يكتي كدوم بسم الله الرحمن الرحيم وخلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنغبيني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا قول ولا قوة إلا بالله علي العظيم صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا سيدي مام يا رب امين seydi maam te dinu baalu àq si jotaay bu yàgg bile sanga bi ne ay mag a ngi fi kilifa yaa fi ñu tawat ñi nga xamante ni ñu ngi ci balaas bi boroomi soxla tamit ñu ci béréb bi toog waaye dina jaadu nag mu jéggalunu si jotaay bu yàgg bile waaye nag jotaayu yiw rek la jotaayu xéewal la sanga bi nee lu fi nit gën a ci balaas bi rek te sellal yiw mi fiy jëlee di gën a bari incha allahu kon nag sanga bi nee gannaaw bam nu nuyoo jéggalu nu nuyoo bi ñu ngi koy defee si turu seen kilifa ñoom ñëpp kooku mooy xalifa bi nekk tey muy Baye Abdoulaye moo fi toogal Seydina Limaamulaay alayhi ku fi manti nekk timit ak fun fi mën mun fi wax ci turu diine ji ci kàddug baay Abdoulaye la noo ndax moo leen boole ñoom ñépp ilif leen ñu di njabootam ñu topp nag ci ginnaawam kon fépp foo xam ni baay Abdoulaye mënu fa àgga ñoom sa ngay rakkay ñu fa mel na ni mel ni seen daraja rek ka la yónni moom nga yor nu toogal ka waaye tamit di wàcce kàddu yi mu yëkkati nuyoo ki nga xamante ni moo di porte parole am seen mag Chérif Ousseynou Laay ku ne xam na ne lii ci loxoom la ko borom bi jaarale mu daan kay taxawal mu daan ka taxawal ànd ak mbooloo mi fii dégg nga ngeen li ci Ibrahima wax léegi doon ci jaaraat jiite mbooloo mi ñu defe ka niin ko defe tey mu ñaanal leen yàlla dogal ren jii mu am ak gàllankoor mu gàntal amgant ñuy ñaan sunu borom bi subhanahu wa ta'ala yok ya ka afiya mook seen kilifa gi baye abdullahi ak njabot gi yeb ak kep ko xamni yaangi am ben tolof-tolof yalla na borom bi teggi ci barke Seydina Limaamu sëriñ maam libaas ne kàddu yëpp Ibrahima wax na ko mu bawoo ci sëriñ bi kon nag di leen jottali waaye tamit nuyoo sanga yi ci des mu taxawal leen fi moom it daal di leen leen di nuyool muy Chérif Mouhamadul Muxtaar bu Seydina Mandione Laay Mouhamadou Bachir bu Seydi Ababacar شريف محمد الأمين مسيد بابا بكر سيد محمد المختار مسلمان سيد بابا بكر أك شريف مام ألسان لاي مسيد أبا بكر أك سيني مك سخنة يب أك جبر جيب نينا دجينا فيك أي دوم أم سنجي تدي توك شرين مورلاي مسيد عبد الله Chérif Cheikh Mbacke mu Seydi Abdoulaye ak Chérif Malick ak Chérif Malick nee na waane ñëpp ñu ngi ci biir nee képp ku nekk ci biir mbooloo mi te gisu la mi ngi lay beral nuyoo di beral nuyoo nag imaam yii ndax wax dëgg yàlla dañ leen ñaanal yal na borom bi yàggal leen fii yal leen borom yàggal fii may leen wér ngeen yàgg jiite mbir yu mel ni yal na ko borom wa taala def lu mel noonu sanges dimaam libaas ne du nuy kilifa yépp yi fi teew ne dafay bañ a wiññe ci ay tur ndax mbooloo te juum yomb na nag kon laay Mamadou sang bi ne mi ngi leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla subhanahu wa mu yokk fan yi yokk wér man gi yokk diine ji yokk jàmm ji ndax yooyu mooy gunge nit ci àdduna bu raklu bii surtout boo xam ni toll nan fi tey ku xam dara war ngaa xam ni addina dafa raglu nag ndax kenn xamatul foo jëm ndax bon bon yu bari la Seydina Limaam alayhi salaatu salaam waxoon nee na addina rëngi-rëngi na jaxasoo na jaxasoob àddina moo waral dëgg dem bay feeñ ci jëmmi neen maanaam ñu fekk dëgg solal ka mbubam neen fekk ay neen saat kay solal mbubam dëgg nee ñi war a mujjee ñu jiital ña jiitu nag ñu mu jël leen ña xam fan war a toog ña réer ña ñoo fa toog ñi réer nag fan war a toog ñu daal fay teg nag borom xam-xam yaa asanallah nee na bàkkaar si jamono ji ñu toll daanaka sanga bi ne mën wax ni ndox mu sedd la mu nit ñi di serloo ab yiw nag doon na loo xam ne doon na loo xam ni nit ñi dañu koy daw nit ñi dana koy daw loolu ban àddina la sang bi ne day laaj loolu ban àddina la bu fekkee dem nañ ba toll foofu nee na bu demee nag ba toll si loolu lu fi dafay laaj ni lu fi des seetal réew mi ñuy dund nee na ñu seet réew mi ñuy dund ku ne gis na ni mu mel ci yàqu maari day tali yeneen baa ngi tëdd fii Seyna Isa tëdd fii ñun ñu baax ñaa ngi fi waaye terewul gis nga doomi réew mi ni nu mel umpul kenn Baye Libaas Ñang dafa waxoon mu ni ci Seydina Limaamu tere ka digle lii la njool ma doore tere ka digle lii njool ma doore nee na takkaayam yi gën a jàngare gànjare taaram taaram ñu ngi ko dooree tere ak digle nee na loolooy taaro loolu la ko yàlla orné loolu la ko yàlla orné fu mu mës a toll fu mu mës a toll teraa tere di digle tamit dem na ba wax ni bu leen gisee ki ma dàq digle lu baax man limaamu dàq maa tere lu baax man limaamu kaay ma ànd ak yéen ñu dem ca moom yonent bi di jàkkaarloog di doom Seyna Isaa Rouhou Laye loolu la dundaloon ginnaawam njabootam gépp tamit loolu la dundaloon waaye tey dem nanu ba tere ka digle moom daanaka daal amatul amatul ku naan déet sanga bi ne kon lu des ci àddina maanaam daal di kon loolu noon bu mag bi nga xamante moo di iblis kon jekku na gaañi de kon gëjëm jëm la kon nga jëm la ngëñ la mu ngëñoon mu ngi dëgg doon dëgg mi ngi waaja doon dëgg nag sang bi ne mi ngi doon waaja doon dëgg de waaye terewul timit waxi boroom ja ña di ay xejjam moom sunu boroom mi ngi continuer di leen tata ba noon boobu di iblis du man ci ñoom dara waaye réeral na ñi gën a bari li gën a bari ci jaam ñi réeral na ba réeralaale ñoo xam ni da leen yaakaare jubal dëgg sang bi ne loolu moom te ngeen seen bët am na fi réew mu toll tey ku ama seetlu xam nga li mu wax kon nag ñun ñii Seydina Limaamu alayhi salaam si diine la yar nag si njub la nu yar ci farlu ci toppa yàlla ak moom di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la yar ngir ñu bañ a juum sax ngir ñu bañ a juum sax nee na bu leen xool ci kenn roy leen ci man lii di am njub lépp sam borom ba def na ko ci moom bu sonna xoolal ci moom rek ci waxinam ak jëfinam nee na loolu bu leen ko defee di ngeen jaar yoonu mu cewo kon loolu moo nu war ñu jaar fa mu jaaroon ku dib jullit ñu lay digal loolu nag sanga bi ne réew ma toll nag foo xam ni ñi réer te sànku te xamadi yàlla ñu ngi naa dañ kaa war a ndëppal ñi réer te réere yàlla ñu nga naa dañ ko war a ndëppal ab jullit dina wax ji wax ndëpp sage bi day laaj ndax xam na nañu lan mooy ndëpp umpunu bokkaale ndax ab jullit bu jamono demee ba mitti dina daw jëm ci ay xërëm nee na loolu moo lay wan ni réew mi toll na foo xam ni jéggi na doy de te du ñoom lu ñuy wax day lu nu gëm nag day lu nu gëm borom rab yi ñu bari ci ñoom gëm nañu ni tey jii ñàkk a toppatoo bi réew mi ñàkk a toppatoo rab yooyu moo nu yóbbu fii a'udhu billahi ana yàlla nag ana yàlla ne ne bal nag dem gi ñuy dem ci ñooñu moo di yóbbu musiba bii feek ñu ngi toll ci tolof tolof di xalaat ay xërëm ak i xàmba duñ ci mës a jug de Seydina Limaamu seen maam alayhi salaam ba mu ñëwee dafa jële bidaa yooyu da koy xeex mu dañ taxawal laa ilaha laa ilaha illa allah kalimatul la ilaha illallah nee mom la fi tek nee na nak bu ñewé lim fi jële kep ko ko andiwaat taxaw nga ak shaytané sanga bi ta kep ko xamni taxaw nga ak shaytané fu yalla jëme shaytané fofu la la sang bi ne bu leen caaxaane loolu de mun ko caaxaane nee na lii ñu def nii mooy li sunu borom bi subhanahu wa taala bëgg buñ demee ba xat-xat am jafe-jafe am waaye nag sang bi nee na dañ war a dellu ci yàlla cib tuub ku nekk xam nga sa bopp nga seetaat sa bopp wéet sa boroom tuub nag ca sarta ya sa sarta ya muy rëccu bàyyi bàkkaar bi mu rot ndéem yaa ngi làmboog moom sa dogu nag li nga xamante ni moo nekk sa kanam sa dund ni dootoo ci dellu mukk nee na su fekkee ni loolu bàkkaar ba sa digganteeg boroom mook sa boroom amaa nag bu dee bu dee sa digganteeg sa moroom ah, ah ndem loo ko tooñe la ak joo ci moom ah sang bi nga dem baalu ko demal fecceeku ci moom booleeg ñett yi mu wax addina jeex na ku nekk ku nekk si ñun waajal sa bopp sang na wallaay suñu sang yi xamuñu luy bànneexu àdduna de yonente baa ngi di Seydina Limaamu de yonente a ngi ni mu jàkkoor Seydina Issa Rouhou Laye Seydina Mandione Laye Seydina Babacar njaboot gi yëpp xamuñu loolu xamuñu woon luy bànneexu àdduna ngir jaamu yàlla rek Seydina Issa Rouhou Laye moom la wax nee na képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm yonen ba na nga topp sama bàyyi limaamu laay ta nga roy ci moom bul yam rek ci ni gëm naa dëgg la ci a àndul ak jëf Seydina Isaa nee na alayhi salaam ku ko def perte nga nee na ngëm kese ku ko yobbu alakhirah andu la jëf dara mu la yobbo nga xamni ni nga way soñe ñak no koy ñak ya da ngay ñak du ben du ñaar ñi fatali nit ñi ni leen gëm na diw doyul ci sunu borom nak doyul ci yalla Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam dafa digle tere boroomam bi nga xam ne mooy yàlla moo ko yónni woon moom la jottalil li mu bëgg ci moom ak li mu bëggul loolu rek la jottali musul waxee bànneexu ba kenam de nee na lépp lu mu wax dafa daan wax Jibril ne sama borom ne kon nag li bi bëgg ci ñun li borom bi bëgg ci ñun jaare ko ci moom jaare ko ci moom loolu la ñu jottali loolu la ñu jottali ni boo leen ko matalee neewul ma dugaleen àjjana de ma jaaral leen yoonu mucc wa rek la wax yam foofu jërëjëf nee na wax naka si kaamilu Baye ñoon lay démb misaalam mi gën a jege rek nee na misaalam mi gën a jege rek fa la yam nga bëgg visa bu la yóbbu ay kayit lañu lay laaj ay kayit lañu lay laaj ne la boo ko matalee ne boo ko matalee nee na kayit yooyu bu matulee doo am dara ki la ko war a jox ki la ko war a jox lu mu foor foor foor bu la koy joxit kayit yooyu day mat moo waral complément de dossier am dëgg la. la tax fooraayam. la tax fooraayam. nga xool ka ba di si dem. nga xool ka di si dem. mu yombalal la ko. waaye du caagi nag. waaye du caagi nag mu may la ka nag da doo ay kayit. fa jox ay kayit li tax mu lay may. kon nag ñun itam ñoom sa ngay tere yi ak digle yi mooy kayit yi yi ñuy laaj te itam na doon kayit yu valable. dooy kayiti kese de bu nekk day wér bu dajee nag ñu nangu daal di dem ki nu gën a kawe dak koy jox nee na loolu la Seydina Limaamu taxawee nee na Seydina Limaamu alayhi salaam nee na kenn kenn mosu ko dàqu jaamu yàlla kenn dàqu ko jaamu yàlla a Maxtaar nee dem na ci jeexaay ba mu jeexoon ba yaram wa jeexoon dafa dem ba nuroog banta booy solal ay yére lekkatul bàyyi laay naanatul nelaw yu doyul lépp mi ngi ci jaamu yàlla rek ak borom te moo fi gën nag mooy xeeru xalxulaay moo fi gën mooy xeeru xalxulaay kenn jegew ko ci ngeneel moo fi gën moom bàyyi laay yeneen bi topp ci moom mi ngi nii sëy naa isaaru wallahi ñi dundoo ak ñoom ñu ngi nii toog yéen a ko gën a xam nan la far farloo woon ci jaamu yàlla ak taxawal nettali sunu borom deltal ya frontière am ya daawul nelaw guddi moom sama Seydi di wër di seet ndax am na ku nekk ci biti di jalgati saga bi ne war nu réer ginnaaw ñi saga bi ne jàngal nannu lu leer li jant bi saga bi ne lan moo tax tey ay nat di wër-wërloo ak yàlla bëgg a nekk ci noflaay ëllëg nga jàll ci noonu dafa yomb dëgg la saga bi ne yàlla ëpp loolu yàlla ëpp loolu yàlla moo ëpp nit nekk ci àddina di tëddaaka jóg topp bànneexam gëm naa diw kese mu ñëw jàll ca noonu waa ñu doon jaamu yàlla nag ñooñu kon seen mbir fu mu féete su fekkee ne mujj ga moo ngi ñu doon fo ñooy ànd duggandoo bokk fi ñu yem sang bi ne kooku du yàlla nee na nit ku mat sax doo def loolu jàngalekat yaa ngi nii seetal sa classe ndax di nga yemale ña farlu woon di di di dumpo loo leen teg ñu def ko kenn nga bëgge ko ak ñi nekkoon di fontu bu résultat yi génnee ndax war na noo yem déedéet dund yam sang bi ne waroonoo yam dëgg la li la nax ci yàlla lan la li la yàlla lan la kon lépp leer na lépp leer na ah dëgg la dëgg la nax yi pour lan ñu ciy dund sang bi ne nax yi lan moo tax ñu ciy dugg Sénégal nag ci nax yooyu la ñuy dugg gëm naa diw liggéey na liggéey boo xam ne ñëpp a xam nañ ci la hawla wala quwwata illa billah yii nax noo ci mën a dunde sang bi ne yii nax noo ci mën a dundee ba bëgg nag wii ji yàlla ci nax yooyu ñu gas ba mu xóot dugal la ca bàyyi la wan la ginnaaw loolu ragaloo ko yow question la de sang bi ne loolu laaj bu doy waar la ku mu mën a doon ci jaam yàlla yi ci yàlla loo xam ni sa doom ji nga jur xaj na ci amul xanaa nag mu def li nga defoon ku bëgg sa liggéeyam sëriñ jàlle la ëllëg ndéem lu baax la woon mooy nga liggéey boobu teg sa lépp loy def rek lépp loy def rek nga nattaka ci loolu. waaye yow ki nga yaakaar waaye yow ki nga yaakaar mu jaar nii mu jaar nii ci jëfam ci jëfam yow nga jaar nii ci sa yow nga jaar nii sa jëf. ni sa jëf ni sa jëf uuteeg jëfam uuteeg jëfam noonu la sa jaar noonu la sa jaaruwaay du uuteeg jaaruwaayam mumtaazul yawma ayyuhal mujrimuun dëgg la alam ahad ilaykum ya bani aadama an laa taabudu shaytaan innahu lakum aduwwun mubiin wa an i'buduni haadha siraatun mustaqiim laqad adalla minkum jibilan kathiran falam takunu taqilun loolu nag balañ cee àgg sanga bi ne loolu bala no cee agga nanu defaru dee duñu xaar dee duñu xaar doonte benn minute la ku ne ci ñun ku ne ci ñun naka Seydina Limaamu waxee naka Seydina Limaamu waxee woon ca xutba ya sàmm nga sàmm sàmm nga day xippi day xippi di xool jur ga fu ñuy jaar ak fu ñuy dugg ñu ngi bàyyi njaboot gi rek sanga bi ne ñu ngi bàyyi njaboot gi rek ku nekk jaar boor bu julli jotee sax yow sa bopp ngay tal bàyyi sa njaboot doo seet julli nanu wala julliwnu déedéet yow sa yoon nekku ci ca sàmm nga nee na bul solo di dem doo seet fu nu jëm lu mel ni bis yi nga xam ni Sénégal aada woon nan di ci mooy yàlla aoudu billahi kilifa yi nañ xoolaat bu baax kilifa yi na ngeen xoolaat bu baax njaboot gi bu nu génne ni dem fenn Seydina Issa Rouhou Laye mi ngi ciy tudd amu cib cër seen bakken la ñuy màggal 24 ak 31 ak seen bakken la ñuy màggal dañuy noos am na yu gën a feddul ku loolu foofu ci diine ji taxawul ci dara julli juróom a ngi mënu ci matal dara boo taxawee ni da ngay màggal yonentam yàlla waxoo dëgg sa bakken ngay màggal mun ootee julli doo wuyu doo julli wala boo jullee doo ko yëwénal ci teel nga kay defale di wan yàlla ne lii def ma diisal waaye bu nee 24 31 nga gis ku ne génn di xotteeka jënd ay ñamag yàlla na ne kenn du ko war lii du diine de li ci Sénégal fii du diine ab po rek la sanga bi ne li ci Sénégal am po la waaye ana kuy wax ana ñi koy dindi xale yaa ngi. ku ne sànku nan sànku nanu daal daanaka musiciens yi lan topp wax naka sa jàmmalaay nee na leen musiciens yi fu nu ootee araam na ci ab julit mu leen di uyu araam na ci ab julit mu leen di wuyu jullit bu leen wuyu jullit bu leen wuyu ëllëg loo dajeel yow la sabab dëgg la loo dajeel rek lu ne yowa araam na ci ab jullit araam na ci ab jullit muy jënd billet ba di dugg ca soirée ba wala concert ba araam na ndax ñu wootee sanga bi ne ndax fu ñu wootee lépp lu di mooy yàlla lépp lu di mooy yàlla boo demee di nga fa fekk liggéey bu rafet nee na liggéey bu rafet bi fi sang bi def bi fi bi def képp ku baax jaar fii képp ku baax jaar fii musicien yooyu yàq nañ ko kenn tuddatul yàlla ci xale yi ñëpp ay way rek ñoo nekk seen bopp ak fecc ak topp bànneex ak topp bànneex loolu rek moo nekk si bopp xale yi télévision yi jàppale leen ci loolu nag télévision yi jàppale leen ci loolu nguur gi di seetaan sëriñ si di seetaan kenn du dindi munkar kenn du dindi munkar kenn dindeetul munkar kenn dindeegul mooy yooyu waaye nag waaye loolu jamono boo xam ni mbëggalam yàlla ñëw na mbëggalam yàlla ñëw na yàlla nee na ñi doon wax déet ñi doon wax déet ñooña laay sowee falammaa nasuu maa zukkiru bihi anjaynaa allaziina yanhawna ani suu ñu doon wax déet rek laay sowee ñooñu laay sowee ñooñu laay sowee ñi fi ne woon ñi fi ne woon di jullee ka jàng alxuraan di jullee ka jàng wax déet te duñ wax déet ma boole leen ak ñële ñi nga xam ne gis na ni jaaduwul te terew na ma boole leen ak ñële réew mi nag réew mi nag fii ñu toll ni rafle na ku naan déet ku bañ nañ ko ba niti neen yi bañ nañ ko ba niti neen yi ñi fi taxawal ay neen ñi fi taxawal ay neen léegi loolu lañ ci xam léegi loolu lañ ci dañuy faral sax dañuy faral sax ñi dem di dem ci ñu yaakaaru ne ñoo leen war a wax deet di leen ger ngir ñu aaral leen ngir seeni nit dëgg la ngir ñu aaral leen seeni neen ngir ñu aaral leen seeni neen moo tax kilifa war naa yeewu war na xool li muy def bu baax nitu àddina yi bu ñu ñëwee ci yow bëgg la wor bëgg la wor bëgg laa nax ba nga aaral leen seeni neen war nga xool bu baax li ngay def war nga xool bu baax li ngay def képp koo xam ne yaa ngi fi di fi taxawal luy màbba diine boo ñëwee la gën ci kilifa la gën ci kilifa mooy mu wax la dëgg jàjjala xamal la ni fi nga tegu du foofu lii nga fi nar a samp yàq mi muy indi

yëg nañu ne ñu ngi yàq lu bari waaye léegi dañuy daw jëm di làqu ci ay kilifa yoo xam ni yaakaar na ni yàlla lan bi toogal dañuy mer ngir yàlla di kontaan ngir yàlla di nëbbu ci ñooñu ngir ñooñu protéger leen seeni neen ñi fi war a dindi neen bu demee bay aar ay neen kon lu ci des sang bi ne ñu baal ka lay Mamadou ma ma libaas ne fépp fu mën a toog dina xam ni mu naxul boppam yàlla la fa war a toogal Seydina Limaamulaay alayhi salaam Seydina Isaa Rawlaay ak njaboot ak yëpp lu ñu waxul moom maam libaas du ko wax lu ñu jéppi ñoom moom jéppi na ko la leen neex neex na ko li am ci réew mi ku na naqariwul sëg njulit waaye des na jar na seet nag jar na seetaat sang bi ne jar na seet imaam yi dajaloo nañ fi def manifestation bu rëy ngir biir Senelec ngir mbiri senelek nee na natt bu rëy bi ngi noonu bu jóge ci yàlla jëm ci imaam yi natt bu rëy jëm ci imaam yi nattoo na leen nattoo na leen lu gën a doy waar facture yu cher muy xale yu jigéen yi ne ci dëkk bi gouvernement bi autorisé leen ñuy jaay seen bopp mu leen di faj borom ñaari tur mari day taali duma ko tudd nee na nee na loterie bi mooy yàlla gu bari loola lim leen di jural fii ci àdduna ak alaxira moo gën a cher fu ay facture Senelec yàlla nattunu ñi toogal diine di ay imam ay sëriñ ndox loolu jaru na leen te yàlla rek tax ñu génn ñu dëkk bi yàqu na li neexul yàlla mi ngi wesaaru ci dëkk bi na dakk tey loolu mosuñu ko def natt bu rëy ngi nii examen bu rëy tegal nañ ko imaam yi waaye résultat bi mujjul fenn mujjul fenn nee na lan lan takkoon ñii ne ñoo fi toogal diine bu ñuy xotti ormay diine. bu ñuy xotti ormay diine. ñu dajaloo ootante ci gox bu ne. ñu dajaloo ootante ci gox bu ne. ñu génn ne. lii na fi jóg lii na fi jóg. wala mu jaral nu ko sunu ba kenn. bu ñu doon def noonu. bu doon def noonu. ñun doon def ci mbiru Sénélec bi. yàq mi ci réew mi. mooy mooy yàlla gi ci jigéen ñi. ak góor ñi. waxambaane bu doon ni li fi ne ñi fi nekk toogal diine ñu ngi génn di xët xëti ngir noonu di yuxu noonu kon kon bu fi jeexul waaye dina wàññeeku sama mbokki journaliste yi bind leen loolu sang bi ne loolu mooy seen wareef sëriñ si imaam yi dajaloo joxe bés ne bàkkaar sangam dañ bëgg mu dakk fi na yem fii wa ilaa duñu dakkal li ñuy def looloo gënoon a yàlla kay facture kay Senelec ke leneen weddiwu ma sax li ñu def waaye nag dafa am lu leen waroon ndax dañu tuumaal seen bopp dafa mel ni kon seen jëru ba kenn moo leen gënal لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه nattal nataka si gi nga bu yame suñu li bu yese ala rawati bu uppe do dara sa beug gi nga matul kon nak bëgg gi nu bëgg yalla war na leen jaral ñoom bu ñuy jalgati attey borom ñu genn genn bo xamni ñepp ci and ngir bon bon yooyu dakk waaye buñ gisul ci lolu gis leen ci lo xamni seen cëru ma nga ca tuuma da leen top kon lay Modu guddal guddaloo lépp baax sanga bi ne foog ñu jàjje nag Seydina Limaam alayhi salaam oo teewloo ni yàllaa ko ni yem ci yoolu de école la madrasa boo xam ni ay mbëri yàlla ñoo ci génn dem na ba xërëm yi sax danga ko xam moo tax libaas jang nii yaaram bi feeñ na ci lebu xaram ya tiit na bay fa boo borom nga neel ya nii xaboo yaa woote diina ñoo sanga bi ne dem na sax ba xaram yi xam loolu nee na bi mu feeñee dañu tiit ñoom xaram yi ne xam ne fii nag dara dootul baax dara dootul baax kon kooku kon defe na ni toll na ci taxawaay yàlla ci kaw suuf tolluwaay boo xam ni jéggi na xel loolu mo nekkon te ay talibem nak dem bëgg barki dem kon nak nan jaar ci loolu farlu ci jamu yalla lor rek la masa wax Seydina Isaa walay bi mu lor rek la fédali mo tok amma tok di mébét dedet sangami ne nan farlu ci jamu yalla sanga bi nee nan farlu ci jaamu yàlla lii rek mooy dëgg te moytu ay bidaa nag lii mooy dëgg te ku ne ci ñun na xool njaboot gi na njaboot gi bu leen sàgganee ëllëg dinañ séddoo saw yiw dégg nga ni ko Seydina Ali ma waxee alayhi salaatu wasalaam dëgg la wax na ko ci xutba yee de sanga bi ne wax na ko ci xutba yi dama tuddoon sànq mi nee dama tuddoon sànq mi sig ca fa nga xamee ne sa fa nga xamee ni soxna yi soxna yi dinaan taxawal seen i jëkkër di laaj yàlla seen àq seen borom kër porte plainte ba ñuy def porte plainte ba ñuy def bokk na ci bokk na ci ni seen jëkkër daan na leen dóor ngir seen ab lal waaye daaw leen dóor ngir ñàkk topp a yàlla daaw ko def daaw leen daaw leen dóor ngir ñàkk yëwénal daaw leen door ngir ñàkk yëwénal julli gi dóor ngir ñàkk sangu sangu daaw leen dóor ngir sangu set ya daaw leen dóor ngir ñàkk jàpp daaw leen dóor ngir jàppa ya da leen bàyyi woon da leen boyaloon rek ñu def lu leen ñu leen def leen neex ñu ne yow yàlla ñu ne yow yàlla daaw ñu terem po daaw ñu terem po daaw ñu tere fecc daaw tere fecc bu baax déglul daawuñu tere fecc sang bi ne daawuñu tere fecc daawuñu tere way daawuñu tere ay way daawuñu tere ay way daawuñu tere déglu musique daawuñu tere déglu kon ñàkk a tere kon ñàkk a tere gi nga ñàkk a tere sa gi nga ñàkk tere sa soxna wala sa njaboot ñuy way wala ñuy fecc loolu dina waral bu ne yemee yowal xiyaam ñuy séddoo ciw yiw xanaa loolu day wane ni waaye fecc aram na ndéem ki ka terewul moom la di jël ab yóom di ko séddale kon ka ka doon def nag kon ka ka doon def nag li am mooy sëriñ danaan taalibe taamul yàlla boo ko jaamoo perte nga waaye bu la taalibe defee li nga bëgg rek saw yoon ci moom liggéeyal sëriñ du ay wax liggéeyal yàlla lan wax libaas nag nee na liggéeyal dëgg la nee na looy sant nit ke rek la ca gën a yey mooy nga sant ko mu liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla moo gën a yey ñu sant ko ñoo ca kontaan nee na lépp lu sante nit ki la ca gën mooy nga ne ko liggéeyal yàlla ñoom kat sangay ñoom sangay mënul ñoom nee na seen boppa dara ca yàlla mun deful li mu wax ñoom seen juddu mënul nu dara ca yàlla mun deful lu wax man noonu kaneen noonu kaneen noonu nee na tribunal bi yàlla kër fa jëkk atte doomu yonente la muy xaabil aadama ka jur taba yàlla atte ba noppi daf ko noppi dëgg la boole nak ci way perte te mu nekkoon te dëgg la sanga bi ne loolu bokk na ci way perte ya kon li fi am solo nee na ñi doomi noox dégg ngeen soxnaam dégg ngeen soxna su nóot Seydi Adama benn teggi ndigal moo ko génne day wax ne moo ko génne fa mu ne woon benna ñu ne ñaata yoon la ñuy teggi ndigal ci bis bi yéen yàlla yonti yàlla Yunus yàlla dugal na kab kasso ci benn teggi ndigal kon nag laay danu juum bu nu juum Seydina du ay wax jëf la Seydina Limaamu du ay wax jëf da nga war a jëf Seydina Limaamu du juddu jëf la Seydina Limaamu du juddu jëf la loolu naka sët yi xam keneen ak keneen ko te xam ne ñoom ci seen bopp ñoo war a gën a mën a jaamu yàlla ndax buñ ko defee yàlla fulandi leen buñ mooyee tamit yàlla da koy ful alxuraan ngi yoneen bi dem ci awlu zaman ñu doon sëy ca këram muy nisaawu nabi nee na ku ci indi du du leer jombateef wu leer nañ yàlla nee na dinaa la mbugal ñaari yoon dinaa la fulandeel bugal mi ci soxnaam rek waxul rek deretam nee na waxul tamit deretam deretam moom leneen la nee na ne soxna sa fay sëy ab say moo ko fa dugal sanga bi ne bu ëndee njuumte lu mel noonu yàlla fulandi mbugal ala rawati doom ji nga xamante ne fa la juddoo bu góorgóorloo tamit yàlla fu la li yiwwa nee na mag ña wax ni xam nga fulandi bi lu tax bu lee ci wàllu ñaawal la yàlla dafa tere mu andil li yàlla tere am ñaawala ngoog mu duma ko mu juddu fi gën wala mu sëy fi gën ñaawal foofa yàlla duma ko mu ñaari duma andi nga lu araam mu duma la mu samp kër gi gën mu samp kër gi gën laabal ka ba lépp lu fa gën a war a laab nga ñaawal foofa mu dumaat la mu nekk ñaari duma safaan bi tamit noonu la digle na nga def mu fay la mu génne la kër gi a rafet nga yokk ab taar mu dolli la fay la comme juddu bu mel nii aw sas la du noflaay ku juddu Seydina Limaamu am nga aw sas wu rëy si jaamu yàlla ak toppa sharia boo deful loolu li mu waxee am te demee di nga xam ni li ma wax dëgg la na borom bi jubal nu yàlla yàlla na borom bi jubal nu yàlla na borom bi nangul nu si barke Seydina Limaamu alayhi salaam sang bi ne ñaan borom bi dëppale nu ak ngërëmam sang bi ne ñu gërëm bu baax a baax jullit ñi fi teew yëpp guddal nañu lool nag déedéet waaye jotaay jàjjee na gudda rek ndax ku ne ci ñun am loo yóbbaale yàlla itam ñu ngi koy ñaan mu dëppale nu ak am ngërëmam ci barke bàyyi laay wasalaam lépp loo xam ni wax nan ka fi jubul si ñoom la coobareem waaye lépp jum lépp lu ci dëppoo gërëmal borom bi ci mbaaxam la wasalaamualeykum wa rahmatullah nee na sëñ bi yóbbu Ibrahima nee sëriñ bi yóbbante na sànq ci yow ak mboolo yi fi ne nee na nan ko daan defee at mu jot su sañoon ñi fi nekk jàngal xoraan yëpp mo leen jox añ ba tax na nee na yépp nga ca kër ga su sañoon sa aña nga fa añu mbooloo maa nga fa loolu daal la ko waxoon nga ñaan sang bi nee ñu jàng ñetti faatiha ñetti xlaa ci salaatu faatiha fas ci xalifa bi dugal ci Chérif Ousseynou bi nga xam ne moo daan taxawal lu mel nii fas ci njaboot gi yëpp fas ci sunuy aajo ak réew mi yëpp yàlla borom bi def fi jàmm amin ci barke Baay Laay sang bi ne lu fi aajo yi waaye yal na ko yalla faj na ko ci dugal amin ñu ñaanal laal ko ci biir yàlla yàggal ko fi may ko آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه